asalaamaaleykum euh, bokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ci seen émission démb tey nag seen émission démb dañuy waxtaanee lu am solo muy naka la ñuy bindee histoire bu Sénégal histoire bu Sénégal nag am na ñoo xam ni dañ ko jàng ci seen maam am na ñoo xam ni dañu ko jàng ci archives yi tubaab yi bind am na ñoo xam ni aussi dañ ko jàng. ci ñi nga xamante ni ñooy suñu maami géwél yi nga xam ne ñoo yoroon histoire bi ñu jàpp ni buñ koy bind dañu war a boole loolu lépp parce que lu am solo la muy suñu histoire te xam ngeen ni tubaab bi yàgg nañu ak moom waaye nag dañoo seet méngale li suñu maam yi doon wax ci suñu histoire yi ak li mu bind lu ci bari dafa woroo te it comme ni ko amadu Hampâté ba doon waxee du ñun waa Afrique dañuy xaar ay tubaab ñëw di jàngal suñu histoire te xam ngeen ni tubaab bi mosunoo def ay nawle ndax ñëw nañu Afrique yàgg fi lool fekk fi alal ju bari ñu jël lépp yóbbu seen réew tabaxi Afrique amoon na or amoon na lépp xam ngeen ni tubaab bi créé na loolu ñuy wax euh, tirailleurs sénégalais yi 1855 ba 1945 waaye gis ngeen nii bi nga xamante ni sunu maam yooyu xeex nañ ñu def leen ay chair à canon ba ñibbi si fii dañu leen a ci ca Caaroy 44 loolu tubaab bi waxu ci dara xeex yi nga xamante ni moo dox sunu diggante ak ñoom it la plupart bu tubaab bii bind du ko bind na mu amee te tubaab bi sax mosunoo def nawle te dama jàpp ni doomu aadama as gor boo ko nawloowul du bëgg sa dara suñu histoire noo koy bindal sunu bopp kon suñu koy bind nañ ci boole ñëpp xam ngeen ni dafa am feebar boo xamante ni moo dal Afrique li nga xam ni moom la tubaab yi wax le syndrome di colonisé traumatisme bi nga xam ni moo ñu dal jóge ci colonisation bi loolu lañu ñu war a faj di jàng sunu làkk di di di di di xalaate sunum xel bañ a xalaate xeli tubaab yi parce que tubaab yi nag wax dëgg yàlla mënuñu ñu bindal suñu histoire il faut que ñun africain yi ci suñu bopp ñu gëstu sunu maam yi même suñu institution yi fi suñu maam yi defoon muy yu civilisé yu démocratique tubaab bi daf ko saboté li nga xam ni moo ci gën a wér mooy gis ngeen ni tubaab bi pour ngeen xam ne li muy wax li ci ëpp da koy wax rek pour defar mbiram ndax dégg ngeen fii ñu ni Saddam Hussein dafa yor ay armes de destruction massive à la fin ñëpp xam nañ ni dara du ci dëgg dem nañu libi ni daf dañoo yori ay armes à la fin dara du ci dëgg dem nañu Égypte ni dañoo yori arme yàq réew yi jàmbur yi te dara du ci dëgg kon nag bu ñuy bind suñu histoire nañu teey te jële ko ci suñu bopp parce que wax dëgg yàlla nag du ay tubaab ñoo nuy jàngal suñu histoire réew tubaab yi li leen taxoon njëw ci suñuy réew dañoo bàyyi woon seen réew njëw ci suñu réew ba ñuy bàyyi seen réew yit bàyyi nañ fa ay nguur yu mel ni suñu nguur yu maam yi fi nekkoon waaye dañoo njëw ne ñun suñuy maam yi nitewuñu amuñu xel yiwuñu soxor nañu ñàng nañu amuñu diine comme ñoom nañu ñëw yóbbuñu ci diine muy christianisme diine diine tubaab diine nasaraan ngir lii nga xamante ne moom lañu doon suñuy maam nu bàyyi ko topp leen ngir teg aussi itam seen alal ci suñuy alal loolu moo waral ñu ñëw fii ci Afrique sawu jant ne dañuy not réew yëpp bi ñu fi ñëwee nag rey nañu fi suñuy maam jaay nañu fi suñuy maam moo waral euh, guinéens yi naan au nom d'une prétendue civilisation le colonialisme français s'installa avec son cortège de malheur kon ñooñu bi ñu ñëwee tiis lañu fi indi naxar lañu fi indi njaaxare lañ fi indi suñu cosaanu réew nag suñuy maam ba léegi du ci tubaab yi lañuy sukkandikoo ngir bind ko ndax gox boo dem diwaan boo mën a dem ci réew mi di nga fa fekk kenn ku nga xamee ne doon na jàngul sax tubaab waaye dina mën a wax cosaanu réew ma boo demee fu mel ni Bargny lii nga xamante ne moom lañ ci xam suñuy maam ba léegi du tubaab moo ñu ko nettali du ci archive coloniale lañ ko jàng ci université Cheikh Anta Diop de Dakar waane ci ay maamaati maam ci ay maam ci ay baay ba ci ñun ñun ñoo ko nettali boo gisee boo demee tey archive coloniale ci université du ñu la jàngal ba Pinet Laprade ñëwee ca Bargny Lamane Gorgui Diouf mu Lamane Baar Diouf dalal ko ca Lamane gi ci Bargny Géej en 1854 ba Faidherbe bu ñëwee ca Bargny Lamane Gorgui Diouf dalal ko ca la man gi ci bari géej en 1856 ñuy négocier partenariat ak kilifay bari ñi xamee ñoo woon kilifay presqu'île du Cap-Vert pour saxaar bi jaar fii pour ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi di jàppalante ndax ñooñu boobu gisoon nañu euh, doxalin ak tëralin bi am ci réewu lébu yii muy une république lébu mu nga xam ne organisation sociale fekk nañ ko fi ak organisation politique kon loolu kenn bindu ko ci archive coloniale te ñun ñu ngi koy ñu ñu ñun suñuy maam ñoo ñu ko jàngal boobu ba léegi bi nga xamante ne Laman Gougui vingt 1822 ba 1862 mu nekk Laman bi ci bar Bargny Géej lu bari xew na ci Bargny te gannaaw moom tam maamam Laman baayam Laman Baar Diouf mi nga xamante ne 1775 ba mille cent vingt deux mooy Lamanu Bargny xeexu am sondong am bi nga xamante ne ñi dafa am site funéraire ba xam ne ay jàmbaar ay gërmi ñoo fa tëdd muy Balobé jóob Biram Diop Ongay Sarot Badoliya Coro Seck Amariya Coro Seck ñaari doom Coro Samb Gëlë Ngom alkati la Sembène Jaraaf Beytir Ndooy ñu daanu ci toolu xare ngir bañ noteelu Kajoor Amari Ngoone Ndeela Kumba ñëwoon ne day mag mag ñi dañ koy tubal joxor di ko yóbbul ca Kajoor mag ñi lank bañ ñu xeex waaw kon ñoo xeexee xeexu am Amsondong muy la ba bataille de Amsondong commencé alson Amsondong mooy fas soo ko si samp tey ba ca Pancuur ba booy génn Bargny ñu xeex mag ñoo ñu tëdd jaay seen deret ngir ngor loolu may wax nag kenn bindu ko ci archive réew moo gis dañ koy woowee noonu la ay ñoñam di wuyoo buñ ne Sénégal dañ naan sénégalais buñ ne sénégalais nag lépp ñëpp la te lépp ñëpp lenn ku ne nga ca kon dañu ko war a waxtaane pencoo ko seet nu mu gën a rafete ñu saam ko ku nekk yor sa cër yor sa cër mooy lan mooy ku nekk li nga xalaat la mu gën a rafet nga indi ko ku nekk sa jëf na mu gën a baaxee nga indi ko ñu boole ko bu ñu ko boolee réew mi jëm kanam ak démbi réew mi ak ñi réew mi tëddeewoon démb ak ñi nekkan ci réew mi démb euh, mënee su koo bind te demuloo ci ñi am bi bind amagul man tey su fekkan ni man lañu woo tey ni ma dañu bëgg ñu saytuwaat ni réew mi tëddeewoon démb ak ñi nekkan ci réew mi ni ñu doon tërale démb damay ñëw bawal dem Kajoor dem Siin dem Saalum dem Waalo dem Jolof dem Njàmbur fenn fu ci nekk nga seeti ña nga xam ni bi bind amagut rajo amul télévision amul seeni bokk ñoo nekkan ci biir loolu doon xew di ko fekkee te fekk askanu ñee ñoo ngi am histoire du Sénégal des ci seeni dënn ndax la preuve mooy tubaab yi bi ñu dajee ak ma koddu koddu Diouf ti jàtti ci la tubaab jëkk a utiliser kanu bi ma koddu xeexee ñoom ba dàq leen jël kanu yi ci jàtti def ci mboob taal ko tubaab yi dañoo bind ku ñuy wax euh, ku ñuy wax Émile Émile Sotan moo doon bàyyi commandant Sotan bi ñu rey le 7 avril 1904 boobu mooy ministre de la colonie gouverneur Sénégal da ko bind ko il faut ñu rey géwél yi ba ñu jeex feek disparaître ñu du ñu mën a maîtriser les damel les teeñ les barsaalum les buurba jolof les bëlëb et cetera et cetera. ndax ñu ni am na lu ñu leen di wax loo xam ne suñ leen ko dee wax dafay mel dañ leen jox drogue kon histoire du Sénégal ak ku mu mun a doon ci àddina mënoo ko bind ak foo mën a jànge ak loo mën a jàng te dellu siwaatoo ci ñi nga xam ne ñooy géwél yi nga xam ni seeni maama daa yor drapeau bi jiitu ci kanam demel ak teeñ wala mu yor ndënd mi tëgg ba mel ni génn guddi fekkee li nga xam ne doon xew kooka histoire ba am nañu fi des am nañu ko seeni maam seeni maam fekke woon seeni maamaat fekk ko nettali ko seeni maamaat nettali ko seen maam yi baay nettali ko seeni maam nettali ko seeni i baay seen i baay nettali leen ko kon mënuñu bind euh, pour bind histoire du Sénégal te boolewoo ci géwél yi demuloo ci pays yi fi nga xam ni fi la yëf fi xewe wan euh, la la ngay bind mën nga ko bind rek euh, pour ñi nga xam ni tubaaba tax ñu nekk nit mais doo ko bind pour ku mel ni Xaadim Sàmb ak ñun ñi nga xam ne dañuy bind di ñëw bawol dafa bokk ci pays yi mag ci réew mi bawol dafa amoon ay ay barab yoo xam ni dafa amoon assemble nationale am sénat am présidence de la république am gouvernance am commissaire central amoon ministre de la defence am finance am culture am lépp ndax bawol bu fekkente ni bi bi demeel amagul nga xam ni teeñ ak lamono amoon booba jamono bala ñu lay fal teeñ bu fekkente ni bant bi daanu na ci sa kaw tegoo nañuy bant ba yëgsi ci yow ndax bu judd yi masaa yem at yi yem dañuy seet dañuy tegooy bant bu ñu tegooy bant ba war laa fal teeñ ci Bawol dañu la yóbbu fu ñu wax sumpas ŋàññ sumpas ŋàññ fa lañ lay yóbbu mooy assemblée presque ñu ŋàññe la ba nga tiiñ aw ŋàññ kenn ku ne xam li nga wax ci yow kenn ku ne wax li mu xam ci yow kii ni Alaaji Taal defoon na nangam kii ni Alaaji Taal nii la juddoo kii ni Alaaji Taal nii la doxee ci dëkk bi ñu topp la ba sa background baax nga set wecc ñu ne ah Alaaji Taal tiiñ na aw ŋàññ ñu daal lay bu ko defee nag yóbbu la kàddu palukaay bu ñu yóbbu kàddu palukaay nag dañuy woo euh, jaraaf al ndaw dadaa ñëw teej maa faan caw dadaa ñëw kër jimik ñëw kër tee ñoxo njaay ñëw euh, bu ko defee ñu daal di génne baax yi fan la ci kàdd palukaay bu ñu fa jógee nag dañu yow yóbbu la nag ci génn guy gu mag bu ñu wax weeru gën sooy bu ñu la yóbbu wéeru gën nag fenn fu ci nekk am na baax yoo xam ni am na ñu yoroon baax yi ci làmbaay ñoo la ko daal defal su ko defee nag bu ñu la falee ba pare nga daal di tracé nag séddale cër yi nag diw fal naa la ngay ceemal gànjool diw fal naa la ngay laman jamatil diw fal naa la ngay ngay barget diw fal naa la ngay béjjéen diw fal naa la ngay nàngam lenn lu ci nekk fonction la boo xam ni moom lañ lay daa jox yow yaa ko daa yor bu ko defee nag kenn ku ci nekk am na gox boo daa dëkk ci Bawol wala muy Kajoor boo xam ni du bokk ak fi nga xam ni fi la teeñ di dëkk ma président woowoon tey ndax bërki démb bi nga xamante ni mi ngi def conseil des ministres ci Thiès bi mu defee conseil des ministres ba génn dama ko jiitu ñëw taxaw fi jéeri ree commandant ce temps le 7 avril le 7 avril 1904 wax ko ni ko fii la jéeri yeewu fasam sërica yeewu fasam fii saamam amari buri njalax yeewu aw fasam fii jéeri yeeg ci fenêtre yi bi mu reyee sotan fii la wàcc jaar moo mbokk Amady Amady Serigne bi ñu wàccee fii lañ fekk sama mu téye laaj bi fas yu ànd ak ñoom woy leen ñu dem kër Armand jël fa seen wecce door dem kon bu fekkee daf maa woo tey di ma laaj dinaa ko ni ñi nga xam ne ñooy professeurs yi ak xamtukat yi ci mbindam càmmoñ danañ ci bokk waaye dalil ji nga xam ni mooy laytaay yi laytaay histoire bi dañuy dem nag ci pays yi laaji ko dañuy ci pays yi ko parce que soo xoolee. Amari Ngoone Sobel def na ti de de def na de def na consensus bi muy xeex ak lali fuli fàkk la bataille d'Anki pour réew yi jot seen bopp dafa woo kër ndeyam woo kër baayam dajale leen kenn ku ci nekk mun la dama bëggoon nu waxtaan kooku démocratie da koo mën a raw ci àddina réew yëpp jolof coloniser leen ñëpp di yóbbu galag ñii di yenu suuf di yóbbu ñii di yóbbu cëgg ñii di yóbbu xorom ñii di yóbbu buy ñii di yóbbu ay bant ñii di yóbbu ay soccu Amari Ngoone Sobel ànd ak Déthié Fall baayam am fukki at ñett ne ko bàyyi lii lu mu doon mu ne ko yet la wunu góor gàll mënuñu koo teggi mu dikk waxtaan def démocratie ñu daje diggante fi nga xam ni fii mooy kunguun woo ndondal woo gaat woo tuube jéey woo bambey séréer dikk woo diggante njarnu njoobel njarnu rikkaaj woo garaam woo saate woo lamsaar woo puñaar wu mbuubaan baras ci ku nag dugg ci kër baayam dugg nag diggante njukki ak njaay jàmm ñaan gëñ dëkk ma ak yow ak pekees ak ngigis ak mbul ak looyeen mbaar ak looyeen yër ak looyeen ñoom ñëpp mu dajal leen ak ngigis ak mbol yaama woo leen ñu ñëw ak fi nga xam ni fii mooy tibaar ak luukuk ne leen kaay leen nu daje ndax booba luukuk du ñu woon ay ceddo ay sëriñ lañ dañ daa ñaan kenn ku ci nekk indi la nga xam ci xam-xam kenn ku ne indi la nga am ci ngànnaay ñu ànd ak Amari Ngoone Sobel mu xeex ak Lali Fulifaak la bataille dànk yi réew yëpp jot seen bopp kooku dafa demoon démo dafa amoon démocratie. donc euh, bu ñu dee bind histoire Sénégal te bañ a am jam-jam parce que bu fekkee ndax ñi ñi nga xam ne ñoo ko jiite jànguñu ko ci seeni maam jànguñu ko ci seeni baay santuwuñu dañoo dem ci biir li tubaab yi bind. di ca jël dina ko delloo siwaatal te tubaab li ko arrangé lay bind président Palade bi ñu ko fetalee poos kotu kere bi ma a joxu moom ànd ak Lat Joor Ngoy Latir binduñu ko bi ñu xeexee ak gouverneur général lakk kan yu ci jàcc ci digganteem ak ma koddu koddu Juuf binduñu ko Lat bi mu xeexee ak ñoom dëkk bu ñu wax looro gu jëkk binduñu ko looro gu mujj binduñu ko bi nga gis binduñu ko mbul binduñu ko xare safilem bi nga xam ne moom la gànjool gànjool dajeeg tubaab yi rey leen pour réew mu jot seen bopp gànjool jot seen bopp binduñu ko Sidi Ndete yàlla kere bi mu dajeeg tubaab bi bi ñu ko falee xumma ci diggante Richard tool ak euh, Dagana binduñu ko donc tubaab bi li ko arrangé lay bind kon nañ ci boole ñi nga xam ni seeni maam fekke woon na ko te ñu daa waxtaan ak seeni maam am ca ñu des ci seen deret ñu xool loola méngale ko ak li tubaab bi bindal nga xam ni bu tubaab bi bindee li ko arrangé mun nu wax li nga xam ni lii mooy sunuy maam dañ ko fekke ndax dañ koo dund ndax tungu ni du jonn ñu natt ci ak Alaaji histoire senegaal nag ni ma ko gisee mooy dëkkunu Mali ñun dëkkunu Guinée duñu ay americain Sénégal lañ dëkk Sénégal gi ñu dëkk nag histoire bi ñi ko xam mooy géwal yi te tey boo demee ci Sénégal dëkk boo fi mën a dem ci senegaal danga fa fekk koo xam ne nii mës a toog ci ba ngi école waaye boo ko laajee histoire dëkk ba mu nekk dana la ci wax loo xam ne nii boo demee archive nationale du fa nekk man mii nga xam ne nii maa toog di wax ak yéen di Babacar Makhtar Samb nga xam ni li ko dale kokki ndaam cilmaxa 36 njóobeen yi ci Sénégal ak huit yi ci presqu'île du Cap-Vert di Ndakaaru ngeen gis may def ay émission ci tele bi amul lenn loo xam ne nii jàng naa ko école française te def naa école française mais loolu lépp ci sama waajur laa ko jële te bindu ko ci sama waajur laa ko jële te bindu ko te moom it cosaan loolu ba tey boo demee beleel ga nga xam ne fa la sama baay cosaanoo cosaan loolu ba tey ma nga fa nit li mu moom bu mu ko bàyyi kenn mu koy fowe ndax histoire ci réew mi la amee am mag ñoo nga xam ne dañu ko fekkee laata ñoo génn àdduna ñu toog jàngal ko seeni doom ni sëriñ di def ak ndongob daaraam ngir bañ bu ëllëgee histoire boobu bañ a réer ci réew mi seen doom yooye wattu ko ñoom it ba amul njaboot jàngal ko njaboot googee ñu di ko véhiculer ba sunu jamonoy tey ñu bëgg nag képp ko nga xam ni yaa ngi bind histoire réew mi nga sukkandiku ko ci géwél yi ci réew mi te bu ko sukkandiku ci dara nga xamante ne si ca nasaraan ba la jóge ndax sa yëfi bopp mu du bokk mukk la nga jéggaani te histoire mag ñi dañu ko fekke jàngal ko seeni doom seen doom yooyee jàngal ko seeni doom ñu di ko véhiculer ba sunu jonni tey kon nanu fonk sunu histoire te bu nu koy gëstu ñu dem ca géwél ya nga xam ni dañu leen daan dajale ca kàddu pénc ga di leen ko jàngal ba tey ñu mokkal ko ni nu mokkale alxuraan ñu ngi nuyu président de la république di ko jaajëfal di ko ndokkeel ci lii nga xamante ne moom la bëgg ñu def ko muy bind histoire du Sénégal histoire Sénégal mooy wax sunu réew démb ak tey ak li ñuy nësër ëllëg ci lu baax nu suñuy maam di dundee ni ñu doon dundee ni ñu doon doxalee ni ñu doon tëralee et eh, yoon nag buñ ko tëral buñ ko tëralee te xel yuy rafet yépp bañ ko ngir ñàkk yenu maanaam dafa fekk na yoon woow xewi na président Bourguiba mu ngi ko doon wax il était docteur d'état en droit mu daan wax je le cite toute loi que l'esprit se refuse à admettre à laquelle il répugne à se soumettre parce qu'il a conscience de son injustice est une loi dépassée fin de citation loolu moo di réew mi bind cosaanu réew mi dëgg la rafet ñëpp rafetlu nañ ko président de la république waande du ñu bind xamante ne ñii xamante ne ñu nga nekk sa université Cheikh Anta Diop rek jàng tubaab ñoo nuy bindal sunu cosaanu réew ndax ñun sunu cosaanu réew ñun xam nañ ko ba noppi xam nañ ko ba noppi te bindaguñu ko ndax mag ñi binduñu ko ndax c'est la tradition orale te benn boroom xam-xam bu ñu naan Claude Claude Lévi-Strauss anthropologue bu mag dafa daan wax ne un récit de tradition orale est constitué de l'ensemble de ses versions connues kon ñun du ñu réeroo ci loolu ay datit du ñu ci réeloo kon nañ ko waxtaane toog ku nekk cëram mu jël ko ci ku ne xam na ne président ku bëgg aada la ku bëgg cosaan ku fonk géwél comme bu fekkee ni géwél yi nekkuñu fi dina am lu bari tey lu réer su fi géwél yi nekkee te ñu war a bindaat histoire du Sénégal ñi ñu ko dénk nañ dem ci pays yi waxuma nañ dem ci Xaadim Samb wala nañ dem ci sol Mbaye nañ delluwaat ci pays yi parce que soo ñëwee tey Jolof la gardienne de la Tata a nga fa ba léegi soo dikkee fi nga xam ni fii mooy bawol sanges birima Fatma ci busa ba tey ma nga fa boo demee tey jii kajoor la bataille de Majooju dégg ngeen ko daag loolu doon ngoon laajte mi ngi fii ci ndànd teen boobu nga xam ni tey histoire senegal Sénégal ndànd gépp teen bi mën na leen di dundal nga dem tey jii Saalum la même chose ndax boo dikkee tey Pathé Badiane bërki démb dama doon am lu ma doon jàng Pathé Badiane fi ñu fetare Pinet Palaat keroog Lat Joor Ngoone Latiir dafa wax ma ba joxu ni ko yaay sama sëriñ maa ñëw wuti si doole waaye maa xam tubaab bàyyil ma jiite xare bi keroog Pinet Palaat dañ ko fetal dama épaule droit am dugal ko ci gaal jaar ak moom Kaolack joow ko ba indi ko Gorée dugal ko ci bato bi delloo ko France ñu faj ko tubaab bi binduñu ko kon ni président fonk géwél parce que nag Euh, bu dee ci diine ji fonk nañu géwél bu dee ci aada ji fonk nañu géwél ndax kilifa diine yi dañu ami maam li seeni maam def tubaab yi duñu ko génne nun noo koy wax nooy taxaw ci xalif général bu mu mën a doon wax ko li maamam liggéeyal yàlla ba yàlla fee ko tey àddina fee ko àllaaxira kon yaakaar naa ni li am solo mooy dàquma ñu bind li ñu jëlee ci archive yu dàquma ñu bind li tubaab yi bind ñu indi ko waaye nag nañu indi ñi nga xam ne ñoo fi nekkan bi tubaab yi ñëwagut parce que tubaab yi yàgguñu Sénégal nun nooy nun ñii noo yàgg Sénégal waaw mbokki Sénégal gis ngeen euh, seen émission démb ci naka la ñu war a bindee suñu histoire parce que histoire dafa am solo te bëgguñu ñu bind histoire bi ba noppi muy indi ay werante te bi gën a wér mooy bi jóge ci ñun parce que nag wax dëgg yàlla tubaab bi moom li mu man def na ko mooy rey na suñu maam yëpp travestir suñu histoire yëpp kon nag nañu boole ñi jàngat ci tubaab bi. ak ñi jàng ci sunu maam yi ak ñi jële ci géwél yi ñu bind histoire boo xamante ni à la fin dañ ciy am fierte tey nag ci club xam sa bopp ñu ciy nuyu suñu xarit Alioune Lo nga xam ni euh, bu gars yi dee wax intellectuel ah damay wax aussi ñi jóge ci daara yi parce que moom daara la jóge wàcc ndakaaru xëy na bi mu fiy ñëw sax yorut ñaari téeméer waaye tey jii mi ngi yor ay ingénieurs yu tubaab di liggéeyloo ñoo xamante ni jàng nañu ba ba ba woo am njàng kon nag li ma xam mooy gëm sa bopp mooy tax réussir di tuddit su ma jarbaat Fatou Thiam dëkk Point e. nga xam ni moom it ci joxaani gi la bokk di sama jarbaat moom itam wax dëgg yàlla ñu ngi koy tudd ci club xam sa bopp eh, di ko xamal ni moom am na ci place Euh, di nuyu suñu xaritit it euh, El Hadji Sarr El Babacar Sarr moom sëñ Babacar nekk fii ci port bi moom it di suñu xarit ki leen doon présenté émission bi di seen xarit El Hadji Ngol Ngol ñu di leen jox daje incha allah beneen yoon ci beneen histoire ci réew mi jërë ngeen